leen di jaale benn keno bu mag ci diine ji muy bàyyi xaali gay ak waa Nabi TV ñëpp daal ñu ngi ànd ak man leen ko jaale yéen auditeurs yi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teeroo njéggal la mag yërmandeem mu bàyyee koo fi jeudi 21 janvier 2021 muy bés bu dal xel ndax tuubaanu amaluna yawma alxamisi lahu wa yawma al isnaini fi istixfaari zil jurami yàlla na ko ca yàlla tàbbal ci daraje yi turandoom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam na émission bi nga xam ne moom lañu ñu def ak moom fii nga xam ne boobaak léegi mat na juróomi weer fii ci Nabi TV dañ leen ci mosal rek tuuti lu mel ni euh, ba agsi ci kàddoom gi mu wax ni ñun ku faatu ci ñun ñu ngi lay suuli ca gàdd ga loolu kon incha allah ñu déglu parti boobu soo ngay dellu siwaat nag ci émission bi fa seenee waxtaan ak yéen ci ndax azaka mën nañ ci tabax juma wala mënuñ ci tabax juma loolu ginnaaw bi ñu dégloo bàyyi xaali ba noppi lay doon ñu dellu si nag jublu ci incha allah tàggoog yéen ba beneen ci yóbbalu daara ci raar la Sénégal ñu xamuñu woon loolu même di séddee nit ñi naan sax ñi ahlu sunna ak jamaa la ak ñi ay bidaa la loolu sax xamul xewu fi woon téer taqdisu asxaas ak ñi ko ñi ko ñi ko saytu ñoo ko fi indi waaye juróom-benn yooyu ñooy seen ñooy seen tëraluwaay léegi nan ngay xame ne moom la mooy Muhammad ibnu Abdul Wahab mi nga xam ne moom duñ ko bàyyi gannaaw mukk bu ñuy deet mi ngi ñu téye dafa dafa wax dafa woote ni dafa am fu mu bëgg a jëm ak nit ñi ñu ni ko nag leeral ñu fi nga jëm ak nit ñi mooy fan ba mu leer mu ni al bayaanu maa nahnu alayhi min ad diin li ñu li ñu jublu dëgg-dëgg mooy leeral ñun diine ji nekk mooy nan wa annahu ibadatun lillahi wala ibadatullahi waxdahu la sharika lahu diine ji mooy dañoo bëgg di jaamu yàlla képp te duñ ko bokkaale kenn dëgg loolu moo indi moom du yees loolu moom du sëri jëm que loolu mu ni nag wa fiihaa buñ dee jaamu yàlla jaamu gu set duñ ko bokkaale kenn naxla'u jamia shirk lépp luy bokkaale yàlla dañ koy dégager jële ko fi loolu du lu bees hmm. ndax loolu moom yàllaa ko santaane woon ñu ne ko ak lan mu ne wa mutaabaatu rasul ak topp yonent bi sallallahu alayhi mu ni fiihaa ci topp yonent bi tuxla'u jamiul bidaay mboolem luy biddaa luy xeetu biddaa dañ koy dindi buddi sànni ci àll ba comme kuy comme kuy róoj dagg bant yëpp tuxla'u jamiul bidaa yi déglul bu baax dañuy dindi mboolem biddaa yi illa bidaatan laha aslu fi ba mu des nag biddaa boo xam ne diine moo ko meññ am na cosaan ci diine ñu ni ko kon biddaa bu am cosaan ci diine dafa am mu ni waaw ñu ni ko joxe ci misaal mu ni ko jameul mushafi fii kitaabin waahid ñu ki dajale alquran ci benn téere moom ne ne biddaa wa jamci omara radiallahu anhu alsahabata ala tarawixi jamaatan ak dajale bu Seydina Omar ibn Xataab dajale woon saxaaba yi ñuy julli naa fi la ci weeru koor ci gannaaw ilimaan ñu ne ko kon loolu biddaa la mu ni waaw ak jamci Abdullah ibn Mas'udin asxaabahu ala alqasasi kulla kulla xamiisi dajale gu beneen saxaaba bu ñu Abdullah ibn Mas'ud daan dajale ay gaayam bisu alxamis bu ne pour di leen waar ñu ne ko kon loolu bi daal mu ne waaw mu ne wa naxwi daalik ak yeneen yu demee ni kii nga xam ni kon moom tudd na ñetti ñetti mbir yoo xam nee na biddaa la te nee na des na yeneen mu ni wa naxwi wa naxwi daalika mu mu ni waaw wa naxwi dalika mu ni fa haada ma la wax nii damoy dajale Seydina Omar bu mu dajale saxaaba yi dajale gu Ousmane dajale kaamil bi Abdoulaye bin Mas'ud dajale gu mu dajale ay gaayam di leen waar nee na loolu biddaa la bu kon wahaab yi mën wasati ko lu ne mën nañoo def lu leen neex lu ne ba mu des ni al bidaatul xasana amul puisque seen sëriñ te nii mu ko ni nii tamaaman bi tamaam noonu la ko Ibnu Taymiya wax est ce que jëlewu ko ci moom sax te boo boo bëggee xam lii ma wax fan la ne. Hmm. demal ci mu àllafaatu Cheikh Mouhamed Ibn Abdul Wahab. Hmm. boo hmm. kon pour saxal ni wahabi yu ni dañoo am baas bu tege ci juróom-benn mbir yoo xam ni ñett yi dañ koo tuxal ñeneen ñett yi ay xalaat loolu neex na leen neexul leen nangu nañ ko nanguwuñ ko ñu ñëw nag ci waxaabi yu nii nan lañ jàppe dëgg-dëgg bàmmeelu ab yonent ak bàmmeelu nit ku baax ibnu taymiya nag laa tudd moom ci boppam noonu la ko jàppe pour ñu xool ba xam moo koy waa këram ñoo ànd wala dé ibnu dani maa yuzkaru min al liñ lay nett li ci ay xar baax ay karamaat mooy sax ay may yu rëy yu kenn foogul woon ñu koy am ci ay bàmmeel wa xawaariqul aadaat di la ko nettali ci ay xar baax mm-hmm. allati tuujadu inda quburi l ambiyaai wasaalihin ñi nga xam ne day am ci bàmmeeli yonent yi ak nit ñu baax dana Sénégal man xaw ma fi bàmmeelu yonent waaye bàmmeelu nit ku baax moom yàlla bari boo ko dëkk boo nekk boo ko fa soxlaa mën ngaa bañ a ci lu wér mu ne nag lañ fay tudd ci ay may yu yàlla di maye foofa ak ay xar baax ñu ne ko wax ci lan mu ne lu mel ni ki ak leer di wàcc ci ko asamaan ngay mm-hmm. gis mu wàcc ci kaw bàmmeel mm-hmm. ak ay malaaka ak leer moom ku ne mën na koo gis waaye malaaka yi Ibnu Taymiyya kon gis ne malaaka mu wàcc ci armeel moo mu ni wa tawaqi shayaatini wal bahaa'imi laha ak moytu bu bàyyuma yi ak seytaan yi di moytu bàmmeel lu ñu baax ñooñu ak yonent yoon mm-hmm. na waxaat yi bu mutu lu bokkul baax yi waaw wala seytaan puisque ñoom duñ ci bàmmeel yi <laughs> dañ koy daw dañ koy daw de est-ce que ñoo ko bëgg daw wala Mm. ibnu taymiya nee na da am leen di dàq mm, mu ni ak indifaau naari anha wa amman jaawaraha ak mu ni bàmmeel yoo xam ni yonent la wala nit ku baax mm. ñu suul ko ci àll boo xam ne dara waru ko am ñax sax fa léeg-léeg daay tàkk àll ba lépp tàkk boo ñëwee bàmmeel ba moom tàkk-tàkk bi ñëwee daf ko moytu moytu ñu ko waale sax ñuy suul mu dend ak moom Hmm. nga xam ne da koo dégg. dara la ko fi tey mi moo ko wax mu ni. waaw xaaral. wa shafaatu baadihim fii jiraanihi minal mawta ak ramu gaa yu baax yooyu ak yonent yi ñu suul leen. ñëw keneen faatu ñu suul ko dendale ko ñoom ñu ramu leen xam nga mi ngi jege si suñu aad fi mu toll nii ñun suñ suñu famille Louga leen dëkk waaye ku faatu gàddu leen lay yóbbu. gàdd lañ la yóbbu que hmm. suñu maam ya fa lañ leen suul hmm. ak suñu baay hmm. te da am kenn koo xam ne bi ñu koy rob kilifa gu mag bi ñëpp xam ci réew mi dafa wax ni barab bii li fi waay ñaan yàlla dana ko dong incha allahu taala moo tax ku faatu ci ñun dañ la fa yóbbu pour kon mbokk yi dégg ngeen ko noonu waaye gis ngeen jëmm jooju it fii la woon ci saal bi may waxtaane ak yéen eh, yal na yàlla yeesan jéggal ak yërmande ci moom ndax ñaan du doy ñun ñëpp nag moom lañu loolu moom bay ba wahabi yu nay xam ko ne ko ñun ñëpp ay baay xaali lañu fii li fi am mooy ci diine ji général bu daanu rek beneen ñëwaat général bu daanu beneen day ñëw ba keroog ñuy fekki suñu euh, ba keroog suñu borom di jeexal addinaam bi mais général bu wàcc rek beneen général a ngi ñëw kon nag loolu ñoom nañ ko bàyyi xel te xam ne lim ñu jàngaloon mokk na fam ñu tegloo woon suñu tànk ña nga ca te duñ ko teggi incha allahu rabbi ba fekki ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. mu mel nit kon ñu ñëw ci loolu ma leen junju ci wàllu azaka ndax mënees na see tabax jumaa wala déet ñi wax ne mënees na see tabax juma fi sabilillah la ñu sukkandiku ndax yàlla moo wax liim ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jox azaka ca taw ba léegi nag bi muy lim ba agsi ci fi am ñu ne xaalis boobee mënees na koo tabaxee jàkka ñu seet loolu ñan ñoo ko wax maanaam ndax loolu ci téere yi loolu wax ju wér la wala kay wérut wala kay am na ñu ko wax waaye xalaat la boo xam ne nii du loo xam ne nii lu ñu mën a sukkandiku la soo demee tey ci téere bii di alfiqhu almalik dalay wax ni la lii di fi sabilillah ay almujahid fi sabilillah dégg nga huwal gazwa wal jihaadu moo tax baatu sabilillah dañ koy itlaaq itlaaq mooy joyal ci lan ci toujours ci wàllu xeex moo tax wala taxsabanna allazina xutilu fi sabilillah fi sabilillah dégg nga kon foofu lan la fay tekki nga ne xeex al jihaadu fi sabilillah kon mënees na ko jox ki nga xam ne nii moom mooy xeex ci yoonu yàlla dañ koy jox azaka su fekkee ni euh, camp beeg yooyu xëy na yi ñuy war a nekk pour mën a défendre seen bopp ak euh, ki yooyu ñuy taxawal ci kaw nga xam ne fa la soldaar yi taxaw di séenu pour noonu bañ leen a bett waaw yooyu mën nañ ko def parce que yooyu yëpp dafa delluwaat ci ci ci ci ci wàllu xare muy stratégie yi nga xam ne ñoo lay may nga am foo sukkandiku ba mën a jàkkaarloog sa sa kooku soo demee ci listis kaar bu ibnu abdil barr juz deux cent vingt deux même chose tamit lay wax day wax ne Malik ak Abu Hanifa dañu wax ne fi sabilillah ñu ngi koy jagleel al jihaadu ak ribaat ribaat xam ngeen ko mooy taxaw foo xam ne nii ni bàyyi xaal defoon taxaw tem ne bu wahabi yu ne yi nare agsi ci man la ñuy jaar ba noppi soog di agsi loolu mooy ribaat taxaw foo xam ne nii wér na fii la noon yi di jaar pour mën a jekk jullit ñi nga taxaw fa tem mat ko sëkk ñooñu lañ loolu mooy al ribaat nga Euh, ku mel ni Abu Yusuf tamit loolu la wax nee na mooy ñiy xeex alxuzaat dégg waaye ku mel ni euh, imam Shafii tamit loolu la wax nee na moom mooy xeex ci yoonu yàlla mennum imam Ahmad ci ñoom ñeent ñi nga xam ne ñoo saxal ngiir yi ñooy njiital ngir yi moom moo ci wax ni fi sabilillah a aj mën na ci bokk kooku ku ku xam ne nii dafa bëgg aji te amul lu mu ajee mën na caa bokk waaye loolu it dañ ko koy nangul ndax ci kilifa yi la bokk moom it it wante boo xoolee aj li man istataa ilayhi sabila la koo xam ne nii mën na ko ku ko mënul yow aj da lay wàcc loolu moo tax te yenent bi muy tudd cinq yi ci cinq yi boolewu ci woon kuy aj màkka waaye mi ngi ciy boole euh, ki nga xam ne nii moom mooy moom mooy jihaad soo demee ci tawdiyah nga xam ne sarxu muxtasar bu ibnu xaaj la ci juz'u 2 ba page 177 même chose tamit la lay wax lan la ñuy firee fi sabilillah mi ne aljihaadu dégg nga mooy mooy xeex moo tax mi ne wa fi sabilillah ba ca ñëw ca suratu xajj aljihaadu lal xajju lal xajju kon gis ko dàq na alxajj mi ne kama zahaba ilayhi ahmad ibnu hanbal li anna hadha iza atlaqa fa baadara zihn ila al ghazwa mu jeex nga dem ci asaqira téere la ci mazhab malik juz u 3 page 148 moom it mu lay wax sabil fi sabilillah boo dem mu lay wax ca baat ba wa fi jawahir huwa al jihaadu duunal xajji gis ko duunal xajji xilaafan libnu xanbal waaw mu ne yonent saa sallam bi muy wax ne asakaykat nañ ko jox buñ ko jox mukk lil ghina ah mi ne ila xamsatin ba muy liim nag mi ne li gazin fi sabilillah walam yuskur walam yuskur alhajj waaye tudd foofu tudd fa aj nga dem ci alfiqu alwaadix ci juz un ba page quatre cent quatre-vingt-dix-huit mu ne la fi sabilillah fi sabilila même chose la moom it noonu la ko firee waaye am mu wax ni am na ñu wax ni mbooleem jëf yu baax yi dafay duggaale foofu mu ne kon ñooñu ñoom jàpp nañ ne kon su boobaa mënees naa taxawal mënees naa jël azaka ji def ci tabax ci juma mu ne waaye daal li wér te wóor wal qawlu al awwalu assaxu wa huwa maa alayhi aksarul fuqaha wax ju jëkk ji daal nga xam ne mëneesu see tabax juma mooy li wér waaye ñi nga xam ne dañ ne daal ci jamiil xurabaat yi dañ koy dugal mu ne déedéet waaw nee na nee na déedéet loolu loolu loolu du lu nga xam ne nii lu ñu lu ñu sukkandiku la xurbaat yi ci lañ koy dugal mi ne déedéet loolu du lu ñuy du lu ñuy sukkandiku dégg nga moo tax mi ne wa binaul masjid ak madaris ak maqabir wa naxwiha innama yuttimu min sadaqati tatawu la min min min zakati al mafruda mu ne tabax juma wala ay école wala ay bàmmeel ak yu mel ni ñoom nee na loolu mën na génn ci loo xam ne nii yow yaa koy saraxe ngir sa coobare delloo ko sa coobare waaye geesu ko génnee nag ci assaka ji nga xam ne almafruda yàlla ci boppam moom moo ko farataal ci nit ñi ba pare jagleel ko juróom-ñetti xeet tudd juróom-ñetti xeet yooyu yëpp mu leer naññ ci boppu nit ñi nga dem ci beneen téere ñoom jege na leen lool sax al mawsuwa al fiqhiya al muyassara muy wax ne boo demee moom it ci jukki deux jukki ba euh, jukki trois ba page cent dix neuf euh, ci waxi ibnu kasir day wax ne fa minhumul xuzaat nee na ñooñu la dégg mooy al xuzaat mu ni inama sadaqaatu ci ci ba tey ci aaya fi sabilillah bi gaa yi di sukkandiku nee na inama sadaqaatu boobu yàlla wax fa hiya al ba ci sabilillah bi mu koy lim moom yàlla ba ci fi sabilillah nee na fa hiyal jihaadu waaw fa hiya al jihaadu wa fil hajji wal umra delloo ko moom it ci benn xadis boo xam ne yonent saa sallam moo doon laaj ab jigéen doon ko kii mooy wax mooy sukkandikuwaayu rek abu xanifa bi waaye ba tey déggoo fi tabax tabax juma déedéet nga dem ci alfiqu al islam wa addila ci juz u nga page huit cent soixante quatorze mina fi sabilillah wa humul guzaat al mujahiduna allazina la xaqa lahum fi diwanil junud ndax li anna sabila al itlaq wa huwa wa huwa al ghazw wa li qawlihi taala inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluuna fi sabili fi sabilihi saffan wa xaatiluu tamit fi sabilillah kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci tontu moom la leen Nabi TV indiloon ci yób émission yóbbalu daara ji di wax ne daal azaka juróom-ñett yi yàlla liim ne nañ koy joxe liimuñu ci euh, joxe maanaam Euh, tabax ci jumaa wala tabax ci ay école wala dara soo amee loo yéene jumaa ji bëgg ko tabaxee génnee ko joxe ko te bañ koo génnee ci asaka ji soo amee loo bëgg tabaxee daara yooyu yëpp ay yiw la mën nga ko def armel tamit noonu génnee ko ci sa xaalisu bopp mais bul ko génnee ci li nga xam ne nii innama sadaqaatu lil fuqara foofu gis nga ni ko yàlla xasroo innama sadaqaatu lil fuqara kon nag ba ci juróom-ñetti xeet yi ba mu jeex foofu la ko yàlla tënk nañ ko tënk foofu ñu nit it foofu lañ koy tënk fii ci seen émission yóbbalu daara ji ak seen mbokk taalibe Daouda Camara di waxaat rek eh, bàyyi xaal yi yal na yàlla seen jéggal ak yërmande ci ñoom ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaanaan alhamdulillahi rabbil alamin salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu